asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant si télévision nationale di leen euh, dalal si seen émission Covid 19 euh, mbas mi euh, comme chaque jour nous avons am benn invité tey nag sunu invité moi, médecin colonel Moussa Diengsa, chef du service national de l'hygiène tey dafa ñëw tey bu waxtaanee ak ñun mbirum Covid 19 mais surtout là, le service d'hygiène def si territoire national yëpp ngir dimbali population bi si xeexu Covid 19 bi balaa loolu nag

te Covid 19 bi waral ko muy benn sénégalaise bu am juróom fukki at ak juróom ñett ñu hospitalisé ko woon fële si hôpitalu Fann président de la république gouvernement bi ak peuple bi ñi ngi jaale famiyam ak njabootam bi yépp di ñaan yàlla mu xare ko àjjana tey samedi ñenti fan si avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jotna le résultat wu test wu bés bi si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari test fukk ak ñaar ñëw nañ si positif benn bi cas importé la mooy cas bu jóge bitim réew fukk yi cas contact ñu doon suivre la benn bi mooy kaa boo xamante ne transmission communautaire la jóge mooy mënuñ ko lënkaleek euh, benn contact wala benn ka ñu wax ne tey aussi juróom benni patient yu ñu hospitalisé woon wér nañ tey danañ leen génn ci kanam yeneeni patient yi nekk hôpital ñi ngi yëg tan bu ñu xaymee ba mbir mi commencé ak léegi Sénégal enregistré ne ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti cas si ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yooyu juróom-ñaar fukk ak ñaar wér nañ si tey ñaar génn nañ si àdduna kenn évacué nañ ko si coobare famiyam muy donc fi ñu nekk nii téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñu ngi hôpital ñu leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi souhaiter peuple sénégalais bonne fête d'indépendance mais di leen ñaax surtout de respecter conseil ñi leen jox pour que nous puissions a Covid 19 bi ci réew mi. waaw ñoo ko déggandoo colonel Moussa Diengsa Sarr ba njàngate la ñu wara mëna def tay ci li nga xamné moy point du jour ci Covid 19 ici ci sunu réew. waa Ramata jërëjëf nga may ma rek ma nuyu la nuyu tamit équipe bi nga xam ne ngi lay si liggéey bi di nuyu aussi vraiment sunu mbokk téléspectateurs yëpp ñu nekk biir Sénégal ak bitim réew nga xam ne ngi ñuy à travers la RTS di delluwaat aussi di leen gërëm si opportunité bi ngeen ñu may tamit ñu gën a at eh, askan bi pour eh, waxtaanee feebar bi nga xam bo mo mo temps yi moo ñu lii wax ni bu fekkee ni dañu ñëw pour résultat yi xëy na euh, li ñu si mettitlu d'abord moom mooy malade bu ñu perdre démb si guddi nekk na loo xam ni vraiment ñu ngi koy euh, mettitlu bu baax te tamit di si profiter di jaal ay euh, mbokkam d'abord di ko jaale aussi peuple sénégalais bi yëpp te di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu tàbbal ko si ardenal firdaws di wax ni bon résultat yi nuñ ko wanee nii en tout cas man lecture bu ma si def dafa nekk euh, bu fekkee ni techniquement lañ ko xool man quand xaw na dal sama xel mhm. di tax ma wax ko xëy na bon ñu ngi wax ni y encore douze cas mhm.

la mesure forte bu nga xam monsieur le président son excellence Macky Sall jëloon na ko muy ñu tëj frontières yi mi ngi résultats. résultat parce que yii ñu passé yëpp da nga daan gis résultat cas importé yi dafa daan bari donc comme mi ngi dit, euh, donc war na ni mesure est amna solo mi ngi joxe résultat pour l'instant deuxième jàngat bu ma ci def aussi moy benen mesure bo xamni jël nañ ko moy manam le suivi des personnes contacts maanaam bu fekkee ne am na ku am jàngoro bi dañuy jël ñëpp ñi nga xam ni dañuy def enquête ñi nga xam ni jot na am ak ñoom euh, rapport yu étroit yi mm-hmm. nga xam ni jort nañ ni feebar bi jox na leen doomu jàngoro bi ñooñu ñu jël leen ñu isolé leen quelque part mm-hmm. di leen suivre nag pendant quatorze jours te boo xoolee si ñooñuy suivre gis nañ si ni dix yi am nañu feebar bi donc loolu mu ngi ñuy wan aussi parce que ñooñu bu fekkoon ni suivre luñu leen xam nga dañ doon leen di bàyyi seen biir kër te bu boobu jom dinañ génn dinañ dem marché ñi ngi dugg si oto yi donc ñi ngi wasaare feebar bi donc wane na ni mesure boobu aussi loolu njariñ bu mu feeñal actuellement ñuy ñaan aussi mu jëm kanam xëy na benn cas bu ñuy wax transmission communautaire moom lañ si remarqué maanaam mooy cas nga xam ni xamuñu fu mu féete donc voilà loolu mooy wan ni actuellement mesure yi nga xam ni ñi ngi koy préconiser diko dawal ci bir euh, riposte bi nek ay mesure yo xamni fimne mi ngi joxe ay résultats te ñi kay vraiment ñaan mu sax même buñu xolé en terme de mortalité vraiment encore une fois ñi ngi kay metti lu lol parce que suñu sañoon fièvre bi du fi lor ken mais gis nañ ni taux bi aussi euh, manam bon par rapport au nombre de cas yi nga xamni am nañ ko malade confirmé actuellement dese lañu touti pour ñu egg un alors que gis nañ a yenen dëkk yo xamni vraiment sur le plan c'est un plateau technique médical et tout gis c'est des taux yo xamni ça ça ça ça ça ça ça frise parfois euh, l'entendement ça dépasse l'entendement donc on ni là aussi que prise en charge yi au niveau de nos structures de santé aussi vraiment machallah. mu ngi jaar yoon ñu ñaan aussi yàlla nañ yàlla gën a jàppale rek amiin amiin mhm. léegi nag yaa ngi doon wax waxu mesure léegi nag dañ dem lu dul mhm. dañ dem ba Kaolack mhm. fekk fa Claire Claire nag def nu fa defar reportage si benn si mesure yi xam ne moo am fan yi euh, fépp si Sénégal ñu ngi ko fay amal mooy tëju marché yi nu ànd si ak moom mu wax nu lan lañu fa def sa Kaolack lu mësta am marché central bu kaw Kaolack tëj ay buntam file askan bu takku doon fi daje bis bu nekk 3 heures du matin la dem ak dikk bi di tàmbale ba ci guddi mu mel ni nag fi mu toll mbir mi changé na Covid 19 nekk li ko waral. marché bi comme ñu ko gisandooro tey marché bi gis nga ñu ngi topp ci digal góornoor ñu ñëwee ne marché bi comme balaa bi egsi na fi dañu bëggoon nit ñi. ñu tëj ko kenn ku ne mën a moytu feebar bi kenn ku ne bañ mën a bañ a wàll sa morom. ndaw si la di wuyoo Mané Faye moom mi ngi dëkk Ngocc bis bu nekk nag dafa daan ñëw file ci marché central bu kaw Kaolack jënd fi ay bagages yóbbu ko ci wilaasam ngir jaayi ko fa tey jii nag mu mel ni mesure bi da ko bett bi mu yegsee. ñoo fekk fii mel nii amul fu ma sama client ñëpp a tëj ñëpp a tëj fi mu ne damay paxaat 2000 dem ñibbiwaat mi 4000 si loo xamante ne benn bagage. vraiment li metti na de ñun lañuy ar nak kenen itam ki ñu dajel di dam jeng mom nak bokku na ci nga xamanteni ñoy fournir marché central bu Kaolack ci légumes ci buntu magasin ñu fekk fa camion bu fess del ak légumes bu joggé Lompoul muy wax ne nak mesures nam faaw ñu respecté ko waye buñ leen dimbali woon dina bax lool. ay xaalisu banque lañ jël def ci jël ay xaalisu ONG ñu lebal ñu ko ñu def ñu def suñu mënon a dimbali li lay wara a suul yi di ñu may ñu. ñu mun di wàccee suñu bagage yi même bu dee guddi gi la ñu wàcce bu bat setee ñu jaay ko sax baax na et puis suñu mënoon a may aussi suñu oto yi ñu defal ñu benn décret boo xam ne dañuy wax ne bépp oto boo xam ne alimentation nga yëpp bu la kenn téye ci yooyu nañ la bàyyi nga àgg fa nga jëm wàccee te wax ñu nuñ koy doxalee ñu seet nuñ ko mun a doxalee ñu doxalee waaye lii buñ ko pertee dina métti de soxna si ay milliards la ñuy ñàkk mesure bi mu ngay wax ne marché central bu Kaolack dina ubbi juróom-ñaari waxtu jëm ñaari waxtu li ni di taxaskan bi mëna ñëw ndugg liñ ci jublu mooy rek mbooloo bañ a am ngir feebar bi di Covid 19 mu bañ a law ci suñu biir. noonu nag colonel ni ñi ñu ngi wax ne mesures yi baax na waaye ku nekk ngi ñaxtu wax sa soxla mhm. euh, waaye rek yaakaar naa ne tamit ku wérul doo tal yenn activité yi mhm. euh, ma bëggoon xam rek yow noo gisee loolu nga xam ne vraiment fii si Sénégal yëpp gis nañ ne marché yu bëri léegi ñu ngi koy tëj am na horaire naam mais ñu bëri ñu ngi koy tëj ndax yaakaar ne loolu mën a dimbali si euh, xeex Covid 19 bi Ramata xam nga feebar bi ni ñuy doomu jàngoro bi di wàllante nit ak nit bon je pense que ni service de santé yi la presse ñëpp ñu ngi si jàpp si information sensibilisée di wax ni euh, jokkoo bi jegeyantoo bi da koy joxe boo jëlee tamit loxo bu setul bu fekkee ni yow yore nga doomu jàngoro bi suñu habitude di nuyoo nga jox nit mën nga mën nga ko wàllu mm-hmm. bu fekkee ni tamit yow yore nga doomu jàngoro bi nga jaar quelque part si table la nga teg fa sa loxo wala si bunt nga ubbi ko dem keneen mën na ko jël donc yooyu yëpp moom mooy dicté consignes yi nga xam ni service de santé yi ñi ngi koy jox euh, askan bi pour ñu mën ko moytandiku boo xoolee nag jegeyantoo bi marché yi gis nga ni nit ñuy jegeyantoo euh, oto yi aussi nit ñi ni ñu koy ni ñuy jegeyantoo loolu tamit moom moo dicté mesures yi nga xam ni autorités yi jël nañ ko pour gën a réglementer par exemple oto yi nan lañ leen di charger pour pour pour ñu mën a dem muy transport en commun yi ak particulier yi ñoo si yem

si sous région bi dama gis ni seen marché bi le matin dañuy ubbi ngoon bi quatre heures ñëpp tëj ñu raxas marché bi mu set et cetera tous les jours mhm. man na affaire bi daf ma jaaxaloon daal te loolu may wax ça fait ay vingt et quelques années alors que Sénégal man gisuma fi loolu da ngay ñëw si sunu marché yi bon dafay dem ba ay des heures tardives ce qui fait que ni du ñu am sax temps ñu nettoyer ko ce qui fait que ni souvent da ngay gis euh, bon saleté bi daf fay bari bon ndox yi parfois aussi assainissement bi day des ce qui fait que ni da ngay dugg parfois si marché yi bon en fait de compte yow sa bopp sax booy jënd dootoo wóolu sax li ngay jënd est-ce li ngay jënd set bon déjà même euh, parfois euh, odeur yu muy kii rek mën na la pousser à ce que nga xaw sa xel teeyaat nga euh, def kii yooyu nag dafa naa ni à l'heure actuelle war na nekk loo xam ni war nañ ko bañal suñu bopp parce que aussi set at selal ku nekk war na ko bëgg dal ku nekk war na ko bëgg xam ni sa wér-gu-yaram moom moo si aju set ak sellal bi sax moo tax ñuy dellu fële mhm. sa Kaolack mhm. parce que dañu def euh, lu bees tamit la xam ne yéen sax yéen si taxaw bu baax mhm. muy Kaolack fena mooy mbirum nettoiement marché yi nu delluwaat déglu clair marché central Boukaoulak Kaolack ñu puudar ko li dire mel di rek dugg ci xex febar bi di Covid 19 ci région bi nak kilifa yi jëlone dogal tëj marché bi ñaari waxtu bu nekk li ni mel nak donte sax neexul ci commerçant yi ñu wax ne ni wérgu yaramu askan bi mo len soxal ngir rek ñu mëna amal ay dispositions yi nga xamanteni jël nañ ko. dañuy lawal yëf yi pour gëna dëgëral euh, manam position bi Kaolack am actuellement moy ñu dem ci béréb yi nga xamni ni ah def nañ euh, euh, autorités yi jël nañ ay mesures pour restreindre les déplacements pour restreindre les regroupements des personnes mais ba tey am na yoo xam ne mënuñ restreindre parce que weer dee nit ñi war a ji ci banque banque boobu mënoo leen ne doo fay nit ñi il faut que ñu regrouper wu bien que dina am une certaine organisation ñu ne ñu nag da ngeen di dem ci béréb yooyu nga xamni ni ba amna des regroupements de petits regroupements qui si qui s'y effectuent ngeen def fa ay opération désinfection bolé ci nak marché Kaolack yi bolé ci également li nga xamni ni mom moy lieu de rassemblement yépp ci liggéey bi nak service d'hygiène moo ci jiitu bu fekkee ni aussi nit ñi nettoyer nañ seeni loxo nettoyer nañ vraiment euh, seen yaram mi ngi set li ñuy sot mi ngi set du téré aussi béréb yi nga xamni dañ fay dajalo ñu fexe aussi ba désinfecté ko gis ngeen ko ci yeneen réew opération bi nag commencé nañ ko tey euh, banque yeeg magasin yeeg euh, endroit yi nga xam ne ñëpp dañ fay dañ fay dañ fay dajaloo ci fan yii peut-être à partir de demain su fekkee pare nañ li ñu jàll marché Médina Baye marché géej suñu fa jógee aussi demain am na d' autres endroits recevant du public nga xam ne yéen xam ngeen ne ñi dañ fay dajaloo me ni gouvernance lu mel ni préfecture lu mel ni service des impôts domaine. li ni mel nekk na lu am solo dinañ ko gën a yaatal ci yeneen marché yi nekk file ci Kaolack waaye itam bépp établissement bi nga xamante ni day dalal ay nit yu bari li ni mel ngir rek ñu mën a daan feebar bi di coronavirus.

mais dama doon bëgg sénégalais bu nek ku nek aussi nga mën si def jangat bu am solo nga xamné buñu yalla mayé buñu mayee génn si at jàmm ni ñuy ñaan mu gaaw sax d'ailleurs que vraiment euh attitude yi nga xamné actuellement population bi ñi ngi koy am ñu jëm ko inscrire dans la durabilité manam mu nek lu lu sax mhm. parce que marché yi vraiment dañ fay jaay li ci ëpp moy li ñuy lekk lu jëm ci suñu bir

inscrire maintenant dans la durée quoi Nous am des heures de fermeture Nous avons tamit ñi euh, nettoyer très régulièrement le service national d'hygiène, je pense que ni aussi toujours di jàppale di désinfecter de temps en temps aussi. mais le service d'hygiène lan mooy taxawaayam si la Covid 19 ndax am plan d'action. Wow, le service d'hygiène c'est xoolee dafa euh, service boo xam le ministère de la santé et de l'action sociale donc euh, nek na service bo xamni Manam euh, maanaam si branche yi nga xamni mom le la euh, ministère bi yoré ñoko consulter yi nga xamni ni ñoy jëm ci prévention Manam fagaru nek na si bo xamni bu am solo la parce que amna direction de la prévention y a snaps, il e y a des services yo xamni vraiment ñi ngi fon def la prévention mais service d'hygiène bokk na si service ici ëpp doole ci prévention boobu ñuy def ce qui fait que ni euh, feebar bi depuis mon fin Chine déjà le service était déjà ah, commencé on di mener ay activités sur le terrain di jëm pour gëna a nit ñi si feebar bi nan lay duggé feebar bi yan matuwaay la si nit ñi wara jël pour que euh, ñu mu bañ dugg biir Sénégal donc mesure yoyu sensibilisation y a la communication interpersonnelle parce que xam nga agent d'hygiène si boppam dafa nek un agent bo xamni c'est un agent de terrain ils sont tout le temps dehors parce que dañuy dem ci kër yi dañuy dem dans la voie publique dañuy dem hôtel yi restaurant yi boutiques yi tout ça pour que ndax nit ñi ñi ngi saxoo at lu leen code de l'hygiène parce que code de l'hygiène moom mooy euh, maanaam téere bi nga xam ni moom askanu Sénégal à travers l'Assemblée nationale nous leen ni nii ak nii ak nii la nit ñi war a en matière d'hygiène et de salubrité maintenant nag li ñuy dugg si biir kër yi at si yooyu ma doon mhm. c'est pour voir ndax mesure yooyu nit ñi ñi ngi koy respecté ku ko respecté wul ñu wan la ni lii respecté wuloo ko euh, avertir le bu fekkee récidiviste nga aussi amna ay daan yo xamni ne nañ ko dañ dañ dañ la siy daan bo xolé nak ci prévention yooyu ñun commencé woon nañ ko di def bo feebar bi dugg ségul Sénégal mhm. mais depuis feebar bi dugg ci bir Sénégal amna na si nag yeneen mesures yoo xam nañ ko ci ce qui fait que dal pour mo doon bëggoon résumer plan d'action buñu buñu bu service national de l'hygiène bari na ay pàcc si nekk amna ci activité toujours yo xam dafa jëm toujours ci pré prévention bi parce que aussi amna ño ñoo xam ne dëkk yoo ko mais amna na dëkk yoo xam ni yàlla nañu feeñu go fa aussi ñi ngi continuer activité de prévention yi pour que mu bañ fa génn aussi la surveillance au niveau des frontières nek na aussi activité bo xam bu am solo parce que dafa fekk ci mission bo xam dañ ko dénk aussi service d'hygiène donc euh, euh service bon bo xolé xëy actuellement tej nañ frontières yi

des forces de défense et de sécurité yi nga beaucoup de surveillance frontière bobo. surtout la police des frontières mais aussi nous avons les agents des eaux et forêts qui sont présents aussi au niveau de de de ces frontières ce qui fait que ni le boobu parfois fu ñu nekkul parfois nous fa des te aussi depuis expérience bu ñu ci les agents surtout des des qui officient au niveau des frontières nous ont jotoon nous leen former ba nga aussi nous nan dañuy mën di cette euh, loi, yenn cas yi nga xam ni mën na nekk des cas suspects yoo xam ne mën na dugg si si si si biir dëkk bi. Mhm. yooyu bokk na si euh, activités yoo xam ne tam mi ngi sunu plan d'action te ñi ngi koy renforcer au niveau de de de ces frontières. mais mais surtout les activités de lutte parce que comme léegi feebar bi tamit dugg na si biir dëkk bi. dafa am mënatuñ yam rek si si si activité de prévention yi parce que bon frontières yi ñu ngi fa def les dispositifs de lave mais mhm. ñu ngi koy def aussi si yenn structure euh, yenn édifice yo xam ne aussi dinay am ay mbolo yu fay faral dajé daje ngi leen di sensibiliser même buñ leen ko joxul amna ño ñoo xam ne leen sensibiliser et ñi ngi déglu sensibilisation yooyu ñom seen bop ñi ngi ut euh, dispositif lave main yooyu di ko fa di ko fa tek parce que service d'hygiène lum su yoré matalé wul mm-hmm. donc mais message bi jall na comprendre nañu intérêt bi ñom aussi ñi ngi koy wut di ko utiliser bo xolé aussi lu ma doon wax problème mu riposte bi dafa nek lo xam il faut légui nga out ay tooke yo xam mom moy ngay mën a xeexee doomu bi parce que bon fu nga xam ni doomu jàngoro bi dugg fa mënoo ko def mais comme doomu jangoro bi mi ngi dugg si donc dañuy si plan d'action aussi on a des activités yo xam ni si loolu le le la féetewoo té euh, xeex bobu moy manam pompe yi ñi def désinfection contamination yi ñi ngi koy def au niveau des sites de traitement mom mooy fu ñuy faje malade yi parce que bo xolé si hôpital yi nga xam ñom la ñu retenir pour di len fa faj il dafa nek ay locaux yo xamni ni tamit dafa nek milieu bo xamni virus bi daf fay circuler donc il faut que équipe nek Fofu di def des séances de désinfection plusieurs fois dans la journée pour éviter que dom jangoro bi meuna a ci malade mu wàll nga xamni mom mo koy faj wala keneen nga xamni tamit mi ngi ci équipe bi parce que xam nga équipe hôpital une équipe euh, bon euh, manam da fay am beaucoup de discipline mhm. y a les médecins infirmiers mais aussi amna na ñoo xam ñi indi repas yi amna na ñoo xam ni ñoom ñooy euh, le nettoyage beeg yi demee non yoy yëpp diñ leen di action yi ñuy def si hôpital yi c'est pour éviter infection bi mu japp leen aussi produit yi nga xamni mi ngi jogé ci maladies yi ñuy faj maanaam les déchets biomédicaux dafa nek produit yo xam aussi c'est dangereux parce que ils sont vraiment hautement euh, contagieux dañ leen di xol aussi sen euh, ni ñu leen di gérer ba ñu yóbbu leen vers l'incinération fuñ ñu leen di euh, maanaam lakkee mhm. ba nga xamni do du un facteur bo xamni ni mën na génne feebar bi ci biir hôpital bi aussi yoy tamit dinañ ko def ci kër yi nga xamni ni le malade yi jógee parce que malade bu ñu confirmer buñ la indé ci hôpital bi ce cœur ñort nañ ni virus bi mën na fa nek dañuy def aussi fofu def des de la désinfection des contaminations aussi ci procédure opérationnelle aussi euh ñaan ñu ko yàlla bon ce qui est même arrivé les cas aussi nga xamni nit ñi ñak nañ seen bakkan c'est le service d'hygiène qui assure aussi la décontamination des corps accompagné jusqu'à la mise en terre de am dispositif spécial. voilà voilà voilà. waaw jërëjëf euh, euh, colonel dégg nañ bu baax kàddu yi malheureusement temps bi xoj nañu xaanu may la rek un message aux populations ngir nu gën a la Covid 19 Wow, peut-être population yi bon lu ma leen di ñaan rek moom mooy ñu jéem a dégg euh, déglu bu baax consignes nga xam jox ñing leen kay jox dal mu que mu joggé ci autorité administrative comme mu joggé aussi ci autorité vraiment seen terre médicale yi parce que aussi. Euh, dégg ndigal toujours baax na parce que bon li ñu leen di jox comme ay euh, conseils at ay euh, directives yëpp dafa nekk loo xam ni dañ ko teg sur des la technique mhm. hein, sur la science loolu moom moo tax bu ñu defee yenn digle yi ñu ngi leen di ñaan pour que ñu koy respecter parce que xeex bi du xeexu ministère de la santé kese du xeexu ministère de l' intérieur kese xëy na am na yenn mesures yoo xam ni nit ñi mën nañ ko duñ ko apprécier tellement parce que tey boo ñëwee nii boo génnee ni di ñëw boo euh, Dakar kenn mus ko xamee nii doo gis kenn si tali bi donc loolu day wane ni nit ñi am na ñoo xam vivre couvre-feu surtout la jeune génération musuñu xam couvre-feu donc war na ni actuellement la situation dafa nekk une situation exceptionnelle te donc waruñu sàggan ba situation bi di ñu rëcc suñu loxo donc war fi yàgg donc moo tax ma leen di ñaan rek mesures yooyu yëpp ñu ànd si at santé at en tout cas ñi nga xam ñi ngi combat ñu xam combat bi combat sénégalais yep le donc ku nekk fu nga toll war nga mën a appliquer si li nga mën recommandation yi joxe pour que vraiment ñu mën am un résultat rapidement pour que ñu génne fi feebar bi si bir Sénégal et puis ñaan aussi mu génn si àddina bi parce que Senegal ñu ko génnee Sénégal aussi te génnul si àddina bi

nga toog sa kër. nga toog sa kër bon vraiment ba situation bi gën a calme daal. jërëjëf euh, colonel euh, Moussa Dieng Sarr di chef du service national de l'hygiène euh, dégg na leen kàddu gi te yaakaar naa ne population yi tamit dégg nañ bu baax tey li nga leen wax ngir vraiment ñu jàppale leen bu baax aar leen si feebar bi nga xam ne mooy Covid 19. dañuy dem lu dul fële si chapiteau bi fekk fa sunu naataango di Oumou Kalsoum Sall di si sunu rubrique allo diaspora alors Oumou Kalsoum Sall na nga def. Ramata maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateur yëpp. waaw Oumou Kalsoum Sarr tey euh, foo dem ak loonu indi waa Ramata tey nag euh, ci suñu rubrique euh, allo jaspora danañ dem ba bitim réew fekk fa doomu Sénégal. waaye xam nga tey day 4 avril di nag bés boo xam ne ni Sénégal da ci màggal rek indépendance am buñ ne 4 avril tamit xel dem ci suñu jàmbaax yi nga xam ne ni ñoo ngi tey jii fii ci réew mi waaye ñoo ngi tamit fépp euh, ci àddina bi te mission yóbbu leen fa fépp fu ñu nekk rek mu mel ni ngir siggil Sénégal la waaye siggil tamit drapeau Sénégal jàmbaax yooyu nga xam ne ni tamit bu Sénégal tolloo ci diggante euh, comme niñ ci nekkee nii nga xam ne ni am na feebar bu fi dugg ñoom dañ ci am taxawaay euh, bu am solo mu di fii ci réew mi waaye it mu di euh, fañu nekk moo tax tey euh, dañuy fekk ki nga xam ne ni moo di liet lieutenant Waly Niang Mboup moom nag mooy médecin chef contingent sénégalais bi nekk foofu ca Gambie lieutenant maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Mhm. alors euh, lieutenant euh, yow yaay médecin chef contingent sénégalais bi nekk foofu euh, ca Gambie nga wax ñu rek tey jii nga xam ne ni Sénégal moo ngi màggal bësam c'est vrai ñoo ngi leen ci ndokkeel yéen suñu jàmbaar yi waaye ngeen nekk foofu ci jamono yoo xam ne ni tamit defe naa pandémie moo nekk ci àddina bi amul benn réew boo xam ne mucc na Gambie foofu sax. Euh, euh, Amna Aïka ay ka ñu bëggoon xam ci contexte bi ñu nekk euh, fii ci àddina bi yéen seen nekk nekkin foofu ca Gambie lan la exactement. alors merci madame Sall donc maa ngi lay remercier déjà ci bi mhm. et je me joins à vous également souhaiter une bonne fête au peuple sénégalais donc ñu ngi ça fera bientôt 9 mois sunu suñu rôle nag c'est un rôle de soutien donc nous finissons dans le but de maintenir donc l'état de santé des des éléments propose le contingent Madame jàmbaar nous nga xam ne ñoo fi nekk fii ci Gambie représenté fi pour mission mais également nous action ñu nous koy extendre donc la population civile donc euh, ci mesures yooyu yi nga xamante nañ bokk ci comme niñ koy waxee chaque jour ci télé bi les mesures d'hygiène individuelles collectives maanaam cet gi di raxas loxo yi saa su ne waaye bokk na ci également donc ñu respecter la distance sociale bi nga xam ne moom lañ préconiser de un mètre su weesoo loolu également donc commandement bi nekk fii nii jël na ay mesures yu am solo bépp activité bi nga xam ne day générer rassemblement maanaam tous les jours dañ doon def rassemblé wu donc fële ci carré d'armes bi yooyu yëpp arrêté nañu ko le sport collectif également arrêté nañu ko donc les permissions vers Dakar ay fi daan jógee di dem de temps en temps permission di seeti seen famille Sénégal loolu it arrêté nañ ko ci ci kaw loolu sax ñu mujjoon dem permission nga xam ne ba ñu ñibbisee léegi def na ñaari semaine

nous extendre son activité vers la population civile ñi dëkk fii donc ci kaw loolu dañ leen doon prodiguer gratuitement donc avec l'avènement donc du coronavirus ñu ngi continuer également di leen xool mais bala ngay dugg ci camp bi teg nañ ko benn dispositif de lavage des mains su ko ñëw maanaam ci population civile bi di nga fa jaar ñu waxtaan ak yow nga raxas loxo ba mu set ñu utiliser suñu ay thermoflash

coronavirus c'est un problème qui nous interpelle ñun ñëpp donc ci kaw loolu may fàttali rek même élément présent bi nga xam ne ñoo fi nekk jaar nañ ci seen compagnie yi waxtaan nañ ñoom def ay sensibilisation xamal leen lépp lu aju ci coronavirus également ñi ñu war a tax donc nos unités compétentes di assister pour mettre les moyens afin que ñu mën ko moins donc euh, mettre les les mesures barrières donc loolu nekk c' est xam ne mu ngi interpellé ñëpp na ci ñëpp def seen loxo incha allah ba ñu mën a daan virus bi maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf jërëjëf di la bu baax di ñaan yàlla aussi euh, mu defal leen foofu jàmm ba ngeen ñibbisi ci jàmm fii ci réew mi. merci merci voilà Ramata kon nag tey jii gis ngeen ko ñu nekkoon na euh, lieutenant Waly Niang mbub moom nag mooy médecin chef contingent sénégalais bi nekk foofu euh, ca Gambie euh, gis na dalal na xel yi ci rek ñoom seen nekkin euh, foofu moo ngi mel ni ñoo ngi respecté mesure yëpp waaye tamit ñoo ngi jàppale tamit askan wi foofu ci rek ci ñu moytu loolu nag la ñu xamee suñu armée bi loolu lañu xamee suñu jàmbaar yi kon nag tey jii loolu la ñu leen andiloon ci seen rubrique allo diaspora di ndokkeelaat euh, vraiment suñu jàmbaar yi fépp fu ñu nekk rek euh, ci àddina bi ci jamono yi lii lañ leen andiloon tey di leen jox rek rendez-vous ëllëg incha allah. jërëjëf Oumou Kalsoum Sall di dalal tamit ajaratu Fat Saxo fii si sunu plateau ajaratu ñoo ko déggandoo tey nag Oumou Kalsoum Sall dafa demoon ba Gambie xam nga tey la 4 avril nag mhm. loo tax nu choisir dem ba Gambie xool si sunu troupe yi foofu nga xam ne dina mën a wax un peu si situation ndax comme xam na ne Covid 19 bi moom fépp la nekk mais heureusement euh, apparemment armée Sénégal moom fépp fu nu nekk muy Sénégal ak fu nu leen déployé yëpp ñu ngi def tout pour respecter mesure barrière yi nga xam ne édité nañ ko mhm. heureusement d'ailleurs euh, parce que na loolu mo tax que ba euh, photo fëtalu bi nga xamanté bi mi ngi am ci gox yu bari ama amagul fii euh, amagul aussi Gambie peut-être que comme ni colonel waxee sank armée bi mi ngi jouer rôle bu am importance donc ñu gën leen joxat seen rek et puis ñu gëna impliquer impliqué wu ci li nga xamanté bi mom moy xex Covid 19 bi parce que nak médecins yi les premiers évidemment comme ni ma ko doon waxee mais pour maintenir l'ordre ak euh, jëmale nit ñi fi nga xamante bi moom la euh, gouvernement yi bëgg il faut force de l'ordre ni ñoom ñooy taxaw pour ñu mun a ci jëm donc seen rôle amna solo tolop torop torop torop Buñ fi nekkutoon xëj na tey euh ñu ngi si wulee ñaay euh, couvre feu beeg leneen ak leneen yëpp tay duñ ko am donc dañuy encore une fois rafetlu sen taxaway ak sen implication ci combat bi nga xamanté bi aduna bi yëpp ñoko bok ndax nak guerre mondiale la. guerre mondiale la te moom guerre bi fan la toll tay nak comme tu dis guerre mondiale bi fan la toll tay Covid 19. waaw guerre bi ñuy guerre ak euh, doomu jangoro bi ñu naan euh, coronavirus wala Covid 19 bi. ba tey moom moo ñu mën kenn euh, daanagu ko euh, chaque jour dafay gën di wane dooleem euh, tey cas yi yokku tollu na si téeméeri junni yu teg juróom donc ça veut dire que xaajaguñu sax ba koy daan par rapport ak li mu yokku woon démb tey 32 mille 470 yokkuwaat na si lim bi ñu amoon démb tu imagines un peu donc 32 000 moo ñëwaat si lim ñu amoon si 105 808 cas dans le monde bu ñuy xool euh, mon évoluer. évolué nyom nyor jàppaat doomu globalement nous ngi si 1 million 1 million boobu euh, tekna, na euh, téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ak donc minini ngi nii dara soppeeku si bay Euh, li mu def si dese tey toll na si juróom benn fukki junni ak ñett yu teg juróom-ñeenti téeméer ak ñaar kon ba tey ci guerre bi ñuy guerre ak Covid 19 bi moom moo ñuy woon dooleem. moom moo ñu mën ba tey. waa yaa maa ngi fàttaliku nag euh, fan ñi si gannaaw ba ngay commencé di lim yaa ngi doon ñaan yàlla nu bañ yegg si million bi. yegg na si million ba romb. depuis ñetti fan xanaa nu ñaanaat yàlla xëy na mu ñu bañ yegg si ñaari million yi rek. ah loolu la ñuy ñaan xëj na balaa boobu xanaa yi. ak seen xarañ ak xam-xam bi leen bi ñu jàng ak li leen yàlla jagleel xëj na dinañ gis loo xamante bi moom mooy soulager euh, population mondiale bi euh, ci feebar bi. lan mooy situation par pays xëy na nu moo ñu mën a wan lu tax tey situation bi xaw a metti nii. waaw par pays ba tey États-Unis moom moo nekk ci bopp bi tey gis nañ ne am na ñetti téeméeri junni cas yu teg juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom l'idée ci kaw territoire am toll na si juróom-ñetti djunni ak témèr ak djuroom ñaar fuk ak djuroom ñu gis né par rapport ak demb limu évoluer ci ay cas toll na si fukki djunni ak euh, ñent ak euh, ñetti témèr euh yu tek djuroom ñaar fuk ak djuroom ñett kon fofu batay euh, li fay évoluer feebar bi mom mo upp ci aduna bi yépp parce que ki si tegu mo doonoon Espagne mais leneen lu ñu gis tay motax ñu marqué ak rouge bordeaux bi Espagne dafa jël

wante nous sommes là, l'Italie a Italie moo nombre de décès si àdduna bi parce que nous avons si 15 362 morts tax dañ naan feebar bi ñoom la affecté si àdduna si mais dama ragal ne fii suba États-Unis parce que boo 14 000 autant pour moi des na bu baakha a baax kon mom ken jogate ko mm. si si si ki si si si décès heureusement d'ailleurs parce que ñom ces euh, nombre de cas bi ñu évolué par contre on voit que ça baisse mm. comme ni ñuy waxé rek nombre bi mu ngi gën di wacc euh, tay ñu ngi enregistré euh, diggante demb ak tay 4775 cas yu bees manam ñeenti junni yu tek juroom ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom Allemagne mi ngi place bi mu nekkone mais batay yokuna mais par rapport ak ñaari fan yi passé limu yokulé yokkule gën na parce que 2000 cas la teg la mais nak ay desem aussi weesu na junni ba teg ñetti téeméer ak fanwer. kon nag euh, ñu dem ci situation Afrique ñu xool tamit Afrique xëy na ndax moom mu ngi tane touti ndax nu muy évoluer tamit. tanewul. Mhm. parce que légui ñu ag ci junni bi boo moytuwul fi ak ñaari fan rek.

Euh, peut-être nombre de pays bi Sinasi, wal sinasi muy Malawi. enregistré na nientika, alors que fanyé ñu ngi daan naan bokku na ci dëkk yi nga xamanté bi fièvre bi la leen. waaw kon nag nu dem situation par pays ba xol tamit euh, fièvre bi nu mu fa taxawé xeyna na mo moo expliquer yene chiffres waaw euh, Afrique du Sud tay officiellement enregistré wu ñu benn cas xamuñu ndax dañu déclaré wul am dette li lañu amone demb jouni junni ak juróomi témèr yu teg euh dara yokkuwu ci tay Algérie mom yokuna évidemment mi ngi ni lu toll si juróom-ñetti fukki cas la amaat tey décès yi tamit 1305 décès la enregistré bu ñuy xool ñi nga xamanté bi faatu nañ fa euh, fofu ci Algérie yokuna lu toll ci ñaar fukki nit ak euh egg nañ tey si téeméer ak fanweeri nit yoo xamante bi euh, feebar bi di Covid 19 loragum na ko foofu ca dëkk booba. mais est que gis nga Algérie. waaw gis naa ko ñi ñi feebar genn wàll gépp a dee. boo ah. xoolee chiffres yi. boo xoolee chiffres yi ñoom ñu ngi nii si mille euh, deux cent cinquante et un cas ñu am déedéet dafa juum si cinq bi parce que ah. maa ngi la wax léegi ne. nombre de décès bi mi ngi tollu ci téeméer ak fanweeri nit yo xamanté bi lorou nañ ci feebar bi mhm. euh ci ci Algérie ah, <laughs> waaw di nga tit bu baaxa baax <laughs> parce que ëpp na torop mhm. donc 130 euh, décès ñom ñoo am fofu euh, li yokku tay ci sen ay cas yo xamanté bi am nañu feebar yu ñu wees nañ si 80 buñu démé ci Égypte mom tamit amna évolution tay pays africain yépp nak dañu am évolution tay li yokku ci Égypte ci nombre de cas xawna bari parce que lu toll si ñaari téeméer ak juroomi nit tay japp nañu fa feebar bi 66 décès lañu am heureusement ñetti euh, juroom ñetti nit ñom ñoo yokku ci li nga xamanté bi ñom moy ñi fa ñàkk seen bakkan ñi fa loru les pays voisins ñu ngi ni encore euh, mais fogon naa ne mënoon nañ dem CDAO avant mais ben la Burkina Faso mi ngi nii euh, tay enregistré na ñetti téeméeri cas ak fukk ak ñett lu tollu si fukki ak benn moom fa yokku euh, tey jaune bi euh, Côte d'Ivoire parce que ci gox ci euh, Afrique de l'Ouest bi wala ñi ci tey enregistré ci ay cas ñaar ak amaat nañu bi Côte d'Ivoire. Guinée officiellement amul déclaré aujourd'hui Mali mi ngi deux cas la ñu euh, Cap Vert aussi yokkule les cas ñeneen ñi mi ngi heureusement tay, euh, tout est voilà waaw c'est c'est ouvert euh, amul ay cas yu bari yu yokku ci pays voisins kon xëy nous nu CDAO, CEDEAO xëy na yor na si bi Wa, zone CDAO, tay, am nañ ben benn fukki ak juróom yo xamante bi mom mo yokku si li nga xamante bi amoon fi démb décès bon taxu bari ñeenti nit ñoom ñoo dolleeku si décès yi ñu amoon deuk yi ko enregistré mooy Sénégal nga xamanté bi amna na benn cas bu bees ci décès nigeria mi ngi won ci ñenti cas euh, mi ngi won ci ñaari cas euh, ñaari euh, yenen ñaar dolleeku na si muy 4 cas légui donc Sénégal nigeria ak liberia ñom ñoo enregistré tay ku nek benn décès liberia mi ngi sogo am décès donc depuis février bi duggé ci réewam ba tay

lu toll si 200 cas ba tegal xamna dinañ ñëwaat def focus si dëkk boobu nga bi aussi situation géopolitique peut-être euh, tax na démb ñu si 300 jàll ba si 500 cas

Euh, def na ay fan biñ ko euh, euh, publier ak légui mais dañ ko choisir parce que fi mu ne discussion yi dafa nek si ndax ñëpp dañu wara tak masque wala duñ ko tak masque ba riru masque tay lembena aduna bi ku nek yaangi daw di wuti masque démb il paraît président américain bi mi ngi nan tay ñepp nañu wara tak masque euh, euh, France tamit gis nañ ay médecins yu def des sorties mhm. nan ñepp dañu wara tak masque parce que nit ki bu tam dalul sa kaw wala à mon chance pour peut-être nga attraper maladie bi donc le grand débat aujourd'hui mooy ndax nit ñi dañu war a pour takk masque wala takkuñu masque donc en tout cas au Sénégal ñun dañu tënku ba tey si li nga xamante bi moom la OMS di digle manam, ñi nga hamne n'yom n'yom ñoo nekk ci biir hôpitaux yi ñoom ñooy privilégié ak ñi nga hamne ne dañu nekk ci espace yi nga hamne ne dañuy jokkalante bu baax ba ak nit ñi ñu dem ba Hong Kong gis fa ñoo xamanté bi ñom fofu systématiquement depuis début wu épidémie bi ñepp dañuy tak masque ñom defuñu confinement defuñu confinement du tout alors mais seule arme biñu am mom moy tak masque bi donc distanciation sociale bi sax duñ ko respecter torop ndax ku ci nek yaangi tak masque donc est-ce que depuis yi aujourd'hui nous nañ adopter lolu ndax masque yi doyul am déet c'est toute la question en tout cas ku ko mën dafa melni ça marche parce que ñom depuis février, bi bien que Chine lañu ñu takkalool c'est bànqaas la sax bu ci bokk mais dañu am une autonomie moo tax sen sen politique ñom ñoko décider sen bop bi Chine décidé ne dañuy def confinement yi ak yoy ñom defuñu ko mais dañu imposer chaque citoyen mu tak masque xëj na l'ol moo leen si aar ba légui parce que bi fièvre bi dooree ak légui ñom liñu ñu am bariwul motul sax junni euh, te li faatu aussi bariwul parce que dafa melni fièvre feebar bi daf leen tisati rek ñent nit rek lañu ñu ne ñoom ñoo fa faatu ci fièvre bi mm. donc euh, c'est un grand débat

il faut bien qu'on mette des masques. te démb rek mi ngi am na ñoo xam dañuy feebar te duñu sax développer symptômes yi. donc c'est à se demander kan ngay moytu. Wa en tout cas dina ci ñëwaat ndax amna ben association sax fi ci Sénégal bu fas bu taxawal ben campagne un Sénégalais en masque te dinañ ci taxaw ba ndax euh, fan yi boo doxantu tuuti si mbedd bi di nga gis nit ñi di commencer du nu dootuñu gêner pour tak masque di dox ci mbedd bi te lu bax la nu dem légui ci Coro News Coro News tey euh, si lan la ñuy waxtaanee Fatou. alors Coro News dafa am loo xamante bi fan yi yëpp ñu ngi ko doon dégg man sax nag euh, dama foogoon ne ay wax rek la parce que aujourd'hui africain yi lu tuuti rek dañuy nekk braqué wu commencé wax gëm seen bopp des trucs comme ça mm-hmm. mais là ça a été une réalité vraiment euh, ay chercheurs ak benn médecin français ils se sont permis mm-hmm. toog ci benn télévision pour wax ne que am na vaccin boo xamante bi dañ ko gis te dañ ko war a dem testé ji ci mm-hmm. africain yi ça a tellement choqué vraiment réseaux sociaux yi ken dessoul ñepp ku nekk jóg di wax ba mujjee gi dañu taxaw publiquement jéggalu et RFI ñom ñoo publier tay que médecin bi ak chercheur bi ils ont présenté leurs excuses pourtant le docteur bi ci hôpital public bu Cochin à Paris la donc euh, autorité la ak chercheur de xamanté bi aussi c'est institut national de la recherche médicale bu France la donc c'est des personnes tellement xamante que ça a choqué les Africains le ministre des affaires étrangères ou encore le ministre de en tout cas position mais position France heureusement d'ailleurs parce que nous nañu sorti de la bouteille, nous essentiellement le waaw te benn point positif ba nga xam ne mën ko téye si information moy xëy le fait que ñu wax ci ba ñëpp wax ci xëy dina tax euh, conscience c'est-à-dire ñëpp bay ci xel parce que gis nañ euh, ci réseaux sociaux tamit ni nan loolu ñu wax sax tax na léegi dinañ si bàyyi xel bu baax ci problème mu vaccin yi euh nu dem légui ci benen euh, coronavirus amna benen beneen xibaar bu ñu indil encore tay waaw pour xana Fatmata Savane daf nan dañu sonn ci dee mhm. chaque jour ñu dégg dé mais nak febar bi dafa ànd ak dee moo tax mënuñoo ñàkk wax ñi dee mhm kii ben pilote la euh, Kenya euh, malheureusement moom mooy quatrième cas bi fa décédé euh, te dañ ko def tay héros national ndax moom mooy ki nga xamné ne mo mujjé mujjee jëli ay Kenya yo xamné dañu bloqué won ci benen dëkk pour indi len ci réew mi léegi bi mu leen indee ba paré nak malheureusement 15 jours après ci la fièvre bi déclenché aussi mom mais bi symptômes yi jibee ak bi muy faatu ñetti fan la ci ñetti fan la donc mon mi ngi tuddu buñu xolé touram mi ni Dodi Kibati mi ngi amone euh, juróom ben fuk at ak ben nan na ko yàlla yërëm euh, nu dem ci xibaaru OMS lon indi OMS OMS euh, peut-on contracter la Covid-19 par contact avec les matières fécales d'une personne malade le virus peut être présenté dans les matières fécales peut être présente donc, dans une matière fécale euh, dans certains cas, mais la flambée ne se propage pas principalement par cette voie kon leer na euh, ginnaaw kër kenn mënu si jàpp feebar bi euh, loolu la OMS wax tey jërëjëf Fatou Sakho ñu ngi leen di gërëm di leen sant si seen teewaay fii si seen émission Covid 19 mbas mi di leen wax encore une fois Euh, bon fête de 4 avril di leen ñaanal guddik jàmm di leen gërëm si seen teewaay fii si télévision nationale te di gërëm tamit ñëpp ñi nga xam ne ñoo teew fii ngir ñu mën leen tegal fii tey émission Covid 19